salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon mu nga woon ca Gambie la mu waxtaan ak Adama Barrow ñii ko fekke nee nañu dañu waxtaan ci li nga xamante ni moom moo di euh, wàllu euh, foore bi diggante Sénégal ak Gambie war nit waratu faa jaar di laqatu rebelle wala Samba Boy coupeur de route mbaa di dagg suñu garab di yóbbu ay ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci gaali euh, tey napp wala ñuy fab ay nit di leen jëlee Barça mbaa Barsaq tey jaare ci ñun ñoom ñaar déggoo nañ ci. surnal euh, bi sax mburoog soow la leen tuddee président Adama Barrow ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Abdou Mbow mu ngay def opposition bu tar foog foog nga xam ne moom moo di assemblée nationale ginnaaw bi mu fi waxee ne ne liggéey te bàyyi seen affaire ay rapport yi nit ñi faluñ leen pour ay affaire rapport Abdou Mbow mu ngi xaar de pied ferme ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko pour bu dikkee war a def poli déclaration de politique générale moom Ousmane Sonko bërëb ba mu jiite moo di building administratif ci jamonoy président Macky Sall dañ ñëwoon dañ koy defaraat. ci lu tolloog 17 milliards mujj ga ñu ngi ko defaraate nee nañ ci 40 milliards loolu day kawteef la ak njombe rapport yooya nga xam ne ñoom ñoo génn dafa am ñu ci joxor bi Mimi Touré ne ko rapport yi dafa laa mi mi daal ne mukk musiba naaru laay rapport musuma épinglé maa ngi nii ay loxo yu set wecc laa yor kon euh, Serigne Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ci ziar bi def na ay ñaan ngir Sénégal yàlla musal ko ci violence yàlla musal ko it ci ndaw ñu toog defuñ dara ñàkk xëy gi waaye wax na it ci li ko jaaxal lool moom Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér néew tas yi fase yi oh ni mu bëree loolu yéem na ko fii ci technopole dafa am benn kaar njaganjaay bu doon wattandiku benn moto tricycle nekkalëb trente personnes am ci ay gaañu gaañu juróom-ñaar am ci ay gaañu gaañu yu méttee méttee méttee yàlla ñu yàlla may yendoo ak